mu ngoog gars yi comme niñ koy defee saa su nekk su bàkk ba wàccee ñu daal di dikk ak yéen ci l' waaye itam di leen fàttali ne bësal touche abonné waaw lu war la yow nga xam ne bëgg nga ànd ak ñun ci sunu communauté bi ñu ànd di joxante ay xibaaru sport à temps waaye itam di ci joxe lu dëggoo dëggoo dëggoo dëgg gars yi tey dañuy ñëw ci waxtaane ci nga xam ne moom mooy dosaaru ah, ki nga xam ne moom mooy Sadio Mané Sadio Mané ñëpp xam nañ ne am na accord bu baax ak ki nga xam ne moom mooy waa Bayern ginnaaw léegi nii ci suba bi nga xam ne moom moom la euh, seen euh, njiit googu nga xam ne moom moom lañ dénk li wàll li jëm ci wàllum transfert boobu noonu jugee léegi fële sa euh, Angleterre wàcc léegi ci suba ca aéroport Berne yi di Hassan sik donc mu ngi noonu tur ba xaw na ñàng tuuti waaye mu ngi noonu gars yi lañ ko dogalee ñi di waa Sky Sport di ko xamal que ne comme Sadio maane day ñëw ba numéro la war takk numéro bi nag bu ko waxee ñëpp seen xel dañuy dañuy dem ci numéro bi nga xam ne moom lay takk fële ca Sénégal waaye moom lañ ko xamee tamit fii ci Liverpool mu nekk benn habitude am muy numéro 10 numéro 10 boobu nag ah comme gars yi ne ko waa Berne waxee nekk na koo xam ne ah, nekk na numéro boo xam ne ka ko yor jamono yi amul benn rumeur que ne day jugee ca équipe ba wala ah, benn rumeur boo xam ne dañuy wàcce niveau am ci équipe ba ndax jariñ ngam leen di jariñ naka noonu nag daañ ko ah, proposer lu ci mel ne numéro 15 waaye numéro 16 numéro 17 bu 18 waaye tam nee nañ ko numéro 22 tamit disponible na wax nañ ko tamit ca numéro 9 bi ak 7 am nañ yaakaar ne mu disponible ndaxte ku boo leen fàttalikoo Lewandowski moom mu ngi noonu di waaje euh, rejoindre ñi leen de Barcelone waaye tam euh, Arsenal mu ngi wax ci ñabri euh, donc mu nekk ay information yoo xam ne si nii dañ ko nekk di suivre Bayern nee na ko ci ñaari numéro yooyu en cas de mun nga ko récupérer donc mu nekk loo xam ne léegi la wàcc ñu ne nañ ci gaaw jox leen ko bala dara xew ci fàttali ñu wane ne ñii di waa Bayern ñu ngi wax ne montant bi dina inférieur à quarante millions d' donc Sadio Mané donc à quarante million d' euros donc lañ ko euh, fas yéene jaaye wala lu ko yées donc gars yi mu nekkoon vidéo bu wàcc léegi ñu ngi dem préparer leen yeneen yu gën a yaatu ci yaatal di leen jox dig daje ci kanam jërë ngeen jëf.